cinq yoo xam ne ay agent fictif la maanaam ñi nga xam ne dañ fay liggéey te ci ay këyit la yem ba pare di jot seen i yoo xam ne doy na war agent fictif yi bari na de euh, rek a feeñ maanaam yëmul kudd rek maanaam régime bi fi jógee ñoom yi mu def ci réew mi ak maanaam dégâts yi mu def ci réew mi mhm. man daf ma sax yéem ñi koy li moo taxoon bëgguñu woon jógee ci bopp réew mi <laughs> parce que xam nañu bu ñu fi jógee lépp dana feeñ parce que man chaque parce que lii dafay xaw a méngoo comme problème RTS bi rek mais nit naka ngay mën a recevoir salaire te liggéeyoo te loolu mooy dugg ci cadre toog muy dox parce que loolu noonu dafa bari de fi mu ni nii entreprise yu baree baree bari loolu moo fa am. Mhm. bari na ñoo xamante ne seeni tour ci kayit rek la yem. Mhm. mais du ñu xëy doo gis du ñu teew. te mhm. chaque fin maa mois ñu recevoir seen salaire. mais nit ki nga xam ne dafa génn àdduna di recevoir salaire ba léegi mais loolu tamit doy na waar. maanaam gis nga directeur COUD bi fi jógee dañ ko war a auditer mu joxe ay explication ci loolu nga xamante ne moo xew. que réew mi. yàqu-yàqu yi dafa bari dégâts yi mhm. dafa bari. Mhm. chaque jour ñu génnee la benn dégât boo xam ne danga naan mais lii naka la mënoon amee ci réew mi. Mhm. parce que lan nekk ci réew yaakaar ni doo fi jóge di def lu la neex. yaa ngi dégg di signé ay contrat yoo xam ne jaarul yoon. di caka cakatee alalu réew mi lu war a dem ci ñëpp nga yemale ko ci ay ci benn nombre. loolu moo dul dëgg du yoon. étudiants yi tamit nañ leen jàppale parce que nit ki suy jàng day soxla wifi. ndox tamit nit mënul toog du ko am. kon dañ leen jàppale parce que étudiants yi dañoo nekk nit ñoo xamante ne euh, yaakaari réew yi fa lay jógee mm-hmm. parce que tey jii président mën na fa génn ministre mën na fa génn mm-hmm. kon ñoom dañoo war a dañoo war a teg ci ay conditions yu baax ñoo am benn problème ci mm-hmm. seen nekkuwaay mais daal man li ma gis ci réew mi daal muy ay xeet yoo xamante ne lu jëm ci affaire ay ay caka-caka ci alalu réew mi ay agent fictif di recevoir salaire te doo liggéey le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye war na def ay audit yu tàng jër jël ay mesures yu ci mhm. képp koo xamante ne nekkoon nga fi di doxal loo xamante ne dëppawul ak jub jubal jubbanti ñu teg la ci yoon parce que loolooy dëgg. Mhm. jërëjëf Omar. waaw sëñ bi man dama yaakaar ni te loolu sax mooy sama analyse sénégalais yi des milliers de sénégalais ils gagnent malhonnêtement leur